salaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 di ko déglu saa su ne rawatina euh, seen émission social toute la ville en parle samedi bu jot 10 euh, heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen mission sociale toute la ville en parle dalal vice président bu ONG Jamra ñu fas yéene waxtaane coow li nga xamante ni fan yi moo daal di am kile di Mame Makhtar gis ngeen ni dafa daal di occupé actualité bi ko waral gis ngeen coowal ñi fi yëkkati ne nañ euh, sax légaliser utilisation wu euh, chanvre indien ñu koy wax yamba ci wolof avortement médicalisé euh, fan yi nag ñuy attaqué Jamra ci côté bu ne wàllum homosexualité am na sax ñuy tuumaal naan Mame Matar Gueye ci ay jamono doon na fi séddale ay préservatif di ko joxe mbirum rangu mi nga xamante ni tamit mi ngi koy taqal ci yu bari médiation yu bari yi nga xamante Euh, Jamra mi ngi koy def ak yeneen ponk yoo xamante ni euh, soxal na actualité bi daañu ko waxtaanee ak euh, kile di Mame Mactar nekk vice président bu ONG Jamra ñu lay nuyu di la dalal jàmm. waaw d' foog ñu jégalu mbokku auditeurs yi ci retardu démarage émission bi loolu nag du fotu réew mi du fotu soxna Ndeye Coumba. Mhm. yàlla dafa dogal man maa fàtte ne ndeketey ñoom toxu nañu nekkatuñu ancienne piste Cheikh Béthio ñu ngi fi Sodida alors dama mujj dëpp nag ñëw alors maa ngi jégalu ci retard bi di am yaakaar ne mhm. laaj ak tontu bi ma fas yéene seq ak euh, soxna si Euh, ñun ñëpp daañu ci jëlee njëriñ incha allah voilà ñuy kontaan bu baax depuis 2012 ba la euh, nga daal di teew ñu lay remercier ci remercier ci sa disponibilité bala ñuy commencer sax am na benn internet wala auditeur lu ma laaj mu ne ma euh, laajal ma Mame Makhtar Gueye moom ci ban ONG Jamra la bokk parce que ONG Jamra xam nañ ni dafa tas nekk ñaar moom nag dafa bëggoon nga leeralal ko mu xam Mame Makhtar Gueye ci ban Jamra la bokk parce que actuellement Jamra am na ñaar am na Bouba Mar Gueye ak bu ñoom Mame Matar Gueye imam Massamba Diop et tout mu bëggoon nga leeralal ko ko. bon ONG a tasul man maa mhm. demandé. Mhm. pour ñu def scission à l'amiable. Mhm. Euh, bureau exécutif bi nangul ma ko. Euh, ki nga tudd léegi Bamar moo nekk fële Bourguiba di toppatoo yow muy toppatoo. sa frère la Bamar Gueye. Euh, waaw suñ ñaari bàyyi bokk ndeeg bàyyi. Mhm. alors man nag ñoom imam Massamba Diop ñoom imam Moustapha ñoom it Adama Niang et cetera. Mhm. ñu daal di fas yéene doxal. Mhm. li fi Abdou Latif bàyyi woon c'est-à-dire ONG islamique Jamra. pour fu ñu tooñee l'islam muy góor jigéen ñu dal seen kaw. franc-maçon yi ñu dal seen kaw. ku fi bëgg daganal yamba ñu dal seen kaw ñun ci loolu la ñu yow sa kuréel waaye comme que nga ca leneen. bon maa ngi koy ñaanal ngelaw jàmm. Mhm. waaye ñun ñoo demande scission bi kon nag du éclaté comme ni ko gars yi waxee ñu man maa demandé ne nañ ko dog ci digg bi. Mhm. comme que ñun saa wu ñu nekkee di xeex ak franc mu xas ñu. bu ñu yëkkatee ay kàddu dal ci kaw góor jigéen yi mu xas ñu. Mhm. ak yeneen yoo xam ne moom la fi Latif bàyyi woon nag ma ne comme que il ne se retrouve pas dans notre combat nañ ko yeewi mu dem. voilà kon moom bosam nu mu tudd. nee na ONG Jamra rek waaye ñun ONG islamique yéen léegi yéenay ONG. islamique Jamra voilà imam Massamba. et tout ça tout le monde observatoire de veille bañ gàcc voilà loolu loolu coalition la. waaw c'est une coalition boo xam ne. Mhm. sëñ su Sy moo ñu ko xelaloon ñu mhm. créé ko en 2013. mu fédéré Jamra. Mhm. Euh, daayira Oustaz Aliou Sall yi ak yeneen yeneen daayira daayira ahlul bayti bu ñoom Baye Dame bu surtout Seydina Limamou ak yeneen kuréel kooku. Euh, coalition la voilà mm-hmm. Jamra bokk na ci coalition bi ñu di ko wax observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses mm-hmm. en en abrégé mbañ gàcc xanaa Bamar Gueye dafay lekk xaalisu franc-maçon yi wala <laughs> trafiquant de drogue yi wala góor jigéen ñi ba tax ngeen ngeen ngeen jël rek ngeen daal di dog Jamra rek yéen féetee na la yokk ca islam waaye daal la ma ca xanaa dafa am fond yi day na war daal en mm. tout cas daal saa ñu jotee ak lobby mm. mu dal suñu kaw Alioune Tine laa fi joteloon parce que xam nga moo fi lijjantiloon góor jigéen boobu ñuy wax Pambay. Mhm. wutal ko ay visa ak yooyu mu dem man ma dal ci kawam Alioune Tine porté ma plainte. Mhm. moom mu jàppale Alioune Tine su ma kaw. def mhm. déclaration nee la ma wax kenn ma ko. ñu daal di fa jógee euh, Sam Bézil. benn cinéaste israélo euh, américain. Euh, daal di def benn court métrage tuddee ko Innocence of Muslim. di xas lislaam nee na l'islam c'est le cancer social yàq Seydina Mohamed lu mel ni xeme. ñu daal di ànd ñun Jamra ak coalition bi nga tuddee léegi Mbañ Gaaj ñoom oustaz Aliou Sow euh, Aliou Sall ak ñeneen. Mhm. ñu def marche ba buntu ambassade États-Unis yëkkati lettre de protestation jox ko ne ko film bi bu mu fi dugg. Mhm. tooñ baaxul sa ëllëg sa bàmbar binda lettre xas ñu. Mhm. alors euh, ñu jógee ti fa. mais yéen est-ce que am ngeen preuve na Bamar lobby yooyu dañ koy joxe. koppar soxlaw ñu sax am preuve. waaye li wóor ah, mooy ah waxoon nga ni am ngeen fi preuve am na def ngeen gëstu am na xaalis ah, bu Bama recevoir ngeen def ay gëstu ba ngeen demee ba ca biir ah, xaalis boo fa mu jógee ñooñu dañuy. défendre cause homosexuelle loolu laajul preuve. banque euh, kii fonds mondial. bi koy financer ay séminaire ak yooyu. Mhm. ils soutiennent des homosexuels. kon nag il est inadmissible ngay bàkkoo ne Jamra nga bokk. Mhm. ba pare di di di di. di laal koppar di di di di di collaborer. ak structure yoo xam ne xaritu góor jigéen nga moo tax ñu nous sommes contre les financements de la banque mondiale bu fekkee moom ba de la du fonds mondial bu fekkee moom Euh, seexlu leen ñun dañu leen seexlu. voilà question yi bari na ñu ñëw ci euh, beneen mbir boo xamante ni jur na coow euh, di légalisation chanvre indien c'est vrai que souvent sax yéen Jamra ak droit de l'homme si fi ngeen di dégloo déggoo bariwul gis nañ sortie bu Seydi Gassama même bu fekkee daf ko weddi sax ñu ne Seydi Gassama nee na dañoo war a légaliser li nga xamante ni mooy utilisation wu chanvre indien maanaam yamba. naka nga gisee déclaration boobu mel ni yow da nga jàpp ne dañ lay provoquer daal maanaam dañuy provoquer ONG Jamra. bon Seydi Gassama bon du ma la nëbb ne c'est un ami. Mhm. waaye léeg-léeg muy tarxiis eh, fii itam tarxiis na. Mhm. non seulement tarxiis na mais il est en retard. Mhm. ndax tout le monde se souvient en juin Mm-hmm. alors que le président Macky Sall venait d'être fraîchement élu deux ans rek la defoon ci pouvoir bi mu am ay kàngam yu mag ay ancien chef d'État ancien secrétaire Nations Unies demandé ko audience mm-hmm. mu di Kofi Annan Obasanjo bu Nigéria e, e, Edem Kodjo bu Togo mm-hmm. Macky Sall recevoir leen xam nga il fondé de se nourrir d'espoir parce que dana ah moi je suis jeune chef d'État ñii mat nañ ma bàyyi mat ma nijaay yi ñi ci bari ci ñoom mën nañ maa jur ñoo ma ñaan audience ah ndax yàlla waaye xëy na dañ may jox ay conseils naka laa war a doxalee agriculture bi njàng mi ak sante bi. Mhm. mais ba mu leen recevoir ba déglu leen Macky Sall xaw naa xëm. Mhm. ndax ñoom dañ ko ne suñu kuréel bi mu ngi tudd euh, fondation Kofi Annan. Mhm. Euh, dañu jóg daal créer ci biir kuréel bi benn commission bu ñu tuddee commission drogue. ndax ñu jéem a seet nu ñuy saafaraal la prolifération extrême du cannabis dans la sous-région. cannabis mooy chambre indien mooy yamba. comme que def nañ xeetu pexe bu ne pour faagaagal ko ce trafic de yamba mm-hmm. de cannabis mu te ñun fondation Kofi Annan muy Kofi Annan bii toog Obasanjo ak ko Kodjo dañu ñëwoon yow président Macky Sall proposé la ñu def benn test bu so doxee Sénégal rek xëy na sous région bi yëpp dañ ci exemple alors proposition bi moo di dañu xalaat ne jot na nga daganal yamba Macky Sall xaw naa xëm. Mhm. léegi nag waa Jamra jóg dañuy def marche dañ koy tontu. Mhm. mag ma ne bu leen waxagum parce que Macky tontoogu leen. Mhm. teylu leen alors alhamdulilah dañu toog 24 heures après le président Macky Sall daal di instruire son ministre de de l' intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo. boo duggee ba léegi ci internet di nga ko fa gis mu daal di génn benn déclaration ferme ne le Sénégal est plus que jamais déterminé à à mu tuddati waay pénaliser la consommation aussi bien que le trafic qui lui-même a été criminalisé par la loi 2731 kon Sénégal daal daal di leen euh, accuse daal di leen réserver une fin de non recevoir mhm. gantal na leen dàq na leen mhm. alors loolu fu Seydi Gassama ne woon deuxième retard u Seydi Gassama gëstu yëpp gëstukat yëpp ci adduna damay jël France bi ñu gën a jege étant notre ancienne puissance coloniale mhm. am na borom xam-xam bu fa ràññeeku ci wàllu euh, addictologie addictologie mooy ñu ngi dem ba chronique ci drogue bu mënatuñ ko bàyyi buñ ko jëfandikoo sax naqari deret mbaa agressé wala rey nit ñu di ko wax le professeur Michel Lejoyeux moo nekk ci hôpital Bichat bu Paris dafa doon gëstu ci yàmba mhm. français yi di ko tuddee cannabis dem na ba ràññee ne que yi muy def ba di kannasuloo nit ñi li ko waral mooy tooke bi nekk ci biir ñu di ko wax en science euh, en terme scientifique THC mooy abréviation tétrahydrocannabinol nee na ndekete boo ko boo muxee yàmba muqiwaat avec l'accoutumance mhm. day jaar ci système nerveux bi ba atteindre le couronnement même di système nerveux muy le cortex cérébral cortex cérébral nag ci euh, ni ko biologiste yi décrire benn malaani kiiraay bu suñu moroom def ci euh, yóor bi mu muur ko nee nañ c'est le siège de la mémoire et de la sélection comportemental par exemple muy man muy yow Ndeye Kumba ba nga nekkee tout tànk deux ans trois ans xam nga on faisait des bêtises euh, affaire xale moo mel noonu léeg nga ñëw ci salon bi euh, tuur fa ndox wala sa yaay def dara nga yàq ko ñun ñëpp jaar nañ ci xam nga su boobaa buñ ñu tàppee eh li kenn du ko def alors professeur Lejoyer nee na cortex bi moo koy enregistré ñu dem ba dëgër dugg école maître bi wala instructeur bi di ñuy jàngal les bases même de l'instruction civique alors il faut respecte euh, l'ordre public il ne faut pas jeter de peau de banane dans la rue cortex moo koy enregistré ñu dem ba la vie adulte ñu ne ñu ah alalu mbooloo bu ñu la ko dénkee nga détourné ko dañ lay tëj kaso mm. boo rey nit dañ lay def lii yooyu yëpp cortex moo koy euh, enregistré alors Michel Lejoyeux nee na nag sous l'effet du yamba THC bi bu yéegee ba ca kaw cortex bi lay anesthésier a mm. partir de ce moment jëmm doomu aadama rek fa ne waaye sa comportement du wuuteeg bu mala hmm. loo tax nag Charles de hmm. un grand euh, philosophe français qui est décédé euh, ancien drogué l'auteur de Paradis artificiel et des fleurs du mal wax na résumé na ko nee na sous l'effet de la drogue le timide devient euh, euh courage courageux et le lâche devient audacieux mm. donc dafay yàq doomu adama dafay yàq jikkoom alors actualité mais euh, am na am na Mamata Gueye ñu naan drogue bi dafay faj de. ma ñëw actualité récente am na ñuy développé naan yamba bi dafay faj am na yu góor yoo xam ni léegi. waaw dañ naan yamba bi dafay faj yéen toog leen foofu yéen xamoo leen. ñooñu nag ma ma dellu leen ci actualité récente bi. Mhm. Jamra inventé ko réew mi inventé wu ko ñoo ko dundandoo. Mhm. mooy boo jëlee ces deux dernières années. mu di mhm. euh, mu di euh, deux mille dix sept. ak deux mille dix neuf bii quest constate. mars 2017 événement bu tiis am ci banlieue bi ça me fait mal même di ko fàttali. Mhm. mu di jëmm ju baax ju yiw di suñu xarit imam ratib bu grande mosquée bu daaru salaam mhm. ñu di ko wax mbay si Diop. Mhm. ndeysaan yàlla daf ko nattoo ci doomam yi mu am ci koo xam ne dafa muqi yamba ba chronique ñu jote rek ay weccante kaddu yu xaw a ñagas rek doom ji moo ko ëpp doole songo ko daaneel ko rendi ko comme xar yàmba la tuxoon beneen bi Euh, juin 2018 la. Mhm. fii ci euh, Sicap Rue 10. am na fa ku lëmbale woon koñ bi bañ nañ ba tuddee ko woon Abdou Rue mhm. ndax naqari deret mën a agressé bari histoire violent mu am bés tam mu am quelques échanges de propos yu xaw a ñagas. Mhm. ak benn xaritam. bu ñuy wax euh, jarbaat la ci borom baar bu célèbre boobu ñuy wax chez Ancu alors kàddu yi ñagas rek mu fa paaka. dëbb ko ko ci dënn bi. balaa secours yi di ñëw waa ji il s'était vidé de son sang bref ba police ñëwee di dàq waa ji course poursuite ba jàpp ko biir Sicap Rue 10 fekkee nañ ca poosam vingt quatre cornets de yamba le dernier cas en date fii la ci Cap Skirring police dañ leen woo d'urgence ne am na un crime odieux bu am ndekete benn xale bu am deux boo xam ne mënagul sax dox dox bu dëgër ñu ne benn cousin moo ko rey police yéeme ba ñu entendre waa ji te police ak may dégg parce que mu ngi ci rapport d'audition bi mm. ne ko kii nga xam ne mënagul sax wax mënul def nit lu bon won wax nit lu bon lu mu la def xam nga lu mu wax tontu bu yéeme moom sa fumeur de yamba la. Mm-hmm. nee na waa dama ko jaawale woon ak lapin bi. Mm-hmm. voilà ce que Seydi Gassama de Amnesty wax ne nañ ko daganal. Mm-hmm. d'autant que dans la même semaine gis nañu des des des des organisations de droits de l'homme telles que RADDHO qui persiste toujours a dire que. nit ñi war nañ leen di bàyyi ñu gérer seen bopp seen orientation sexuelle c'est une manière indirecte mhm. de dire que góor jigéen nañ ko ndaganal mhm. dans la même semaine sa naataango yu jigéen yi AGS mhm. réseau Siggil Jigéen ñu ngi woon fii ci euh, euh, nu mu tudd la Petite Côte di fa def séminaire pour ñu daganal yàq biir mu di avortement qui est une forme d'infanticide qui ne dit pas son nom dans la même semaine Seydi Gassama ne ñu daganal yamba ma ne xanaa aaxiru zaman mooy bëgg a wàcc ko alors ma ne kon nag kenn amatul droit toog mais mais mais avortement médical c' est c' est vrai que euh, temps yaa ngi occupé actualité bi. Hmm. Ah, dañuy fàtte sax Jamra Mame Matar Gueye rek la ñuy wax mais avortement médicalisé bi ci boppam xam nga euh, euh, féministes yi wala droit de l'homme yi wala waa AGS réseau Siggil Jigéen ainsi de suite yëkkati woon nañ ko fii naan pour les cas de viol inci de suite mais yéen tamit ngeen jóg dal seen kaw mais dañu gis ni ñoom dañu reculer ci combat bi na bëggatuñ si sax di wax lu bari naka gisee d'abord euh, li tax man la ñuy dégg tout le temps c'est normal. xam nga Seydou Gueye moo. moo am nañu mais Mame Matar Gueye yow rek la ñuy dégg lu tax duñ dégg ñeneen. c'est normal parce que lu mel ni Seydou Gueye c'est lui qui porte la parole de APR Bokk Yaakaar. Mm-hmm. Mm-hmm. kon c'est lui qui va au mm-hmm. alors euh, Jamra. Imam Massamba Diop. mooy président exécutif Imam Samba kenn du koy dégg lu tax. kan moo agité woon bi coow Wally Seck jógee ne bu Wally retiré wul plainte bi man Imam Samba danaa génn liste góor non danay génn mais maanaam la muy génn du du du bari maam Matar daal rek la ñuy moom mooy def bës waaw loolu nag am nañu ne sax maam Matar moom du def bës <laughs> semaine wala mois <laughs> euh, maanaam trois cent soixante cinq jours sur trois cent cinq jours ma tontu la ci mi ngi euh, ma tontu la ci ñaari baat mm, mm. su ma nekkee le vice président chargé de la communication mm-hmm. ou bien ma assumer li ñu ma dénk wala ma daw ma démissionné mm. mais boo yoree communication yaay dem au charbon mm. bu dee saaga yow la ñuy saaga bu dee xas yow la ñuy xas mais ba ñuy dem ci avortement médicalisé bi ak recul bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci waa AGS et autres waaw euh, Mamata naka ngay yoree yow tamit li la Mollah Morgun wax dëgg la mm. naka ngay yoree liste góor jigéen ñi Uh, ba pare uh, di dofloo sénégalais mais lan moo tere nga wax ñu góor jigéen ñi ñan la listu góor jigéen ñi waaw xam nga yéen bi ngeen denc yéen waa ONG Jamra euh, wax nga Imam Massamba dànkaaf woon na fi ne bu ñu kiyee naa mais euh, Mamata wax ñu liste man maa ko ne woon téye ko Mollah nee na la yow waxal ñu ñu xam ñan ñooy góor jigéen ñi et eh, Mollah jugóo nañu léegi waaw wax naa ko ce qui s'est passé alors ce qui s'est passé mais lan moo tax nangoo wax euh, ña góor jigéenu Sénégal yi non il est un peu ak lesbiennes yi da ngeen xaw a tardé ci information mais c'est c'est fait <laughs> ah non am na yu ñu si jot mais ay association ah, nga joxe kon yaa ngi ñëw si ñu ngi suivre <laughs> yaa ngi ñëw joxe nga ay association <laughs> ay association joxe euh, quelque président wala présidente association gis nañ ñi nga lim mais liste bi alors léegi nag liste bi maanaam diw ak diw ak diw ñooy. Ah, voilà ñooy góor jigéen léegi nag hmm. maa ngi gërëm euh, l'ex <laughs> apéris euh, en ex ministre conseiller de Macky sal hmm. le rebelle maa koy surnommé noonu. Hmm. Moustapha Diakhaté. ndax moom moo soññ gouvernement bi. à travers sa page Facebook nee na la mais depuis combien de mois. Jamra naan gouvernement bi jox na ay récépissé góor jigéen ñi jox leen un statut légal loo xam ne dafa yéeme. Mhm. te yéen gouvernement tontu leen sur ces graves accusations de jam mhm. maa ngi koy remercier ndax tax na Aly Ngouille Ndiaye woo ma le mercredi 13 novembre bi yàggul à mhm. peine deux mois ma daal di ñëw il était entouré de tous kangam kàngam particulièrement euh, Ibrahima Sakho le secrétaire général de du ministère de l'intérieur ne ma dañu dégg daal coow récépissé ñun ñu état ñoo joxe récépissé et tout en tout cas man personnellement Aliou Ngouye Ndiaye ba ma fi toogee ba léegi joxewu ma en tout cas ma ne laa ma ne woon daal naaloo mm-hmm. ñu déglu la daal ñu waxtaan ci ma ne ko donc monsieur le ministre nee nga ma mosoo joxe récépissé bravo ñun on ne personnalise pas de combat waaye dañu ne l'institution que vous dirigez qui s'appelle ministère de l'intérieur du Sénégal ci nguur Ablaye Wade joxe na juróom-ñeenti récépissé góor jigéen ak lesbienne on a les preuves mm-hmm. yi jóge na neuf léegi on en est à seize kon yéen seen régime joxe na ci sept mm-hmm. ça fait seize ce qui un scandale parce que on ne peut pas comprendre un état nga am l'article 319 du code pénal qui condamne les unions contre nature ba ñëpp a tàccu euh, comme catholique yi parce que no deux textes de référence la Bible et le Coran condamnent l'homosexualité ñëpp a tàccu ce état jaar ci suuf naan góor jigéen ñi am leen ay récépissé yi ñu daal di am des existences légales ma ne ko léegi nag danga nga may jox sa adresse email ma yónnee la yëpp mais en attendant pour su ubbi suñu waxtaan mën naa la si jox ñetti spécimen mu di les trois associations les plus virulentes gën a wow bët benn bi mu di ay des bi Diadji Diouf jiite ëpp ci ay taalibe six cent trente cinq membres numéro de récépissé quinze quatre cent quarante quatre délivré le tel tel tel 2012 euh, siège social. Mmh. Parcelles Assainies adresse tant récépissé délivré en date du tel par qui le ministère de l'intérieur du Sénégal beneen exemple bi ma lay jox moo di euh, kuréelu góor jigéen bi ñuy wax prudence dirigé par Jamil Bangoura numéro de récépissé nangam siège à Dakar nangam euh, délivré par qui euh, la DGAT la direction de l'administration générale du territoire du ministère de l'intérieur beneen échantillon bi mooy góor jigéen yu jigéen ñi maanaam les lesbiennes dirigé par kii Ndey Kebe moo gën a wow bët rangu euh, ndax moo fi defoon <laughs> scandale dugg ci waxu rangu defoon scandale bu rëy rëy fii ci euh, Grand Yoff hmm. euh, piano piano ñun on on avait porté parce que dañu doon def tëju hmm. di def seen yu bon di détourner xale bu am seize ans brigade des mœurs sa jàppale voilà hmm. donc moom bosom mu ngi tudd sourire de femme nombre de membres tant Euh, récépissé temps délivrer la tel ma ne nag lii échantillon la danga may jox adresse e-mail monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mm. ma yónnee la tout yónnee la sax des documents confidentiels yoo xam ne laajoo ma ko mm-hmm. document confidentiel yi li ma si jublu mooy mm-hmm. wan la ni récépissé yi musiba lay dikkal Sénégal wan la naka la góor jigéen yi di utiliser récépissé yi dans des activités euh, peu catholiques et pas notre pays ma ne ko dama la jox benn exemple bu ndaw mm-hmm. récépissé yi tax na ba ambassades yi yu bon yi ñi nga xam ne affaire ngóor jigéen dafa nekk une banalité dans leur pays profité nañ ci pour def de l'ingérence de l'inadmissible ingérence bind nañ leen Macky Sall ne nañ ko na nga yemale ambassade Canada na nga yemale ambassade Hollande alors ma ne ko benn exemple laa lay jox ambassade Canada lan la ambassade Canada def dafa yónnee benn mail en date du 18 décembre 2014 yónnee ko 16 associations góor jigéen yi ngeen autorisé yéen. Mhm. parce que tubaab dafa muus du dugg ci loo xam ne amul statut de légalité kon euh, kii ngeen leen jox récépissé yi moo may fit ambassade bi alors mu bind leen ñun jot nañ lettre bi original bi en anglais nee naa ko danaa la ko yónnee. Mhm. mu ne waaw xam nga boroom ñaari tur yi euh, ils ont des difficultés pour assumer seen orientation sexuelle il paraît que sax dangeen ngeen am ay jafe-jafe pour am des emplois mhm. da di am da ngeen di subir da ngeen di vivre une forme de stigmatisation. pour obtenir des financements de projets waaye na seen xel dal ñun Canada créé nañu le FCIL mm-hmm. le Fonds canadien d'initiative locale léegi am na commission boo xam ne liggéeyam mooy ku ci am projet bu crédible mm-hmm. nga yónnee ko mm-hmm. projet de financement bu ko commission bi xoolee si ça tient la route on vous finance ma ne ko nag monsieur le ministre ñun bañuñu ay structures étrangères di financer doomu réew mi parce que la crise de l'emploi elle est connue il a de jeunes de waaye defin bi moo ñaaw parce que le fait que mu adressé ko à des associations d'homosexuels c'est un clin d'œil malsain pour yow sa jarbaat ak sa doom wala man sama jarbaat ak sama doom ak keneen alors si seen euh, sens critique euh, un peu faible mën nañ ko interpréter négativement daane ah man ñaata at a ngi may ut visa euh, Canada aw ma mm-hmm. ñaata at a ngi nii may ut dégg nga financement de projet aw ma ko te kii nee na ku bokk ci association yi ñu financé la kon teemaa dem bokki ci association góor jigéen yi ma ne c'est un a à l'encouragement à l'homosexualité mu ne ma ñaata la ambassade bi joxe ma ne ko joxe na cent quatre-vingt-cinq millions et j'ai la preuve séddale nañ ko Ndey Kébé am na ci sourire de femme Jamil Bangoura association góor jigéen prudence am na ci Jaaji euh, Diouf association góor jigéen dees am na ci ak ñeneen cent quatre-vingt-cinq millions leen ambassade ki loolu ñu ngi encourage xale yi ne boo leen bokkee ci kuréelu góor jigéen yi seen affaire dana yomb alors kon nag ñi doon wax naan ah Matar di mu doon coow analyste yi xaw ma kuy naan Matar doon coow de waaye du Aly Ngouille Ndiaye alors kon nag. voilà li ñaan daal. parce que question yi bari na waaw te temps bi bari beneen voilà euh, comme ni nga ko waxee Mamatar mi ngi attaqué euh, lobby homosexuel yi euh, Mamatar ak Jamra ñu ngi attaqué franc-maçon yi ñu ngi ata attaqué trafiquant de drogue yi ñu ngi attaqué ñi ñu jàpp ne maanaam dañuy yàq li nga xamante ni mooy valeurs yi gis nañ ni da nga attaqué ku ñuy wax Rangou parce que loolu def na actualité faaw ñu laaj la ci Rangou mooy fii boo peut-être mi ngi organiser ay soirée mi ngi di poster ay vidéo ci réseaux sociaux ainsi de suite peut-être loolu moom la engagé mais en tout cas euh, rang moom mayu la dara parce que ba nga duggee moom ci dossier am euh, gis nga déclaration bi mu def ne Mame Matar Gueye fii lay nekk di toog ci télé yi di wax ah di euh, joxe bonne leçon di faire la leçon di jaay nitu diine ainsi de suite alors que Mame Matar day ñëw fii sama kër ma koy ceebal ceeb yi neex ak si bu kañ njarum soow waaw ak njarum soow te day ñëw sama kër sax fekk ab góor jigéen te musul nga xam naa la nga eh, eh, nu ma tuddati man saa saa wuñ ma. Ah, posé damay ree ba daanu suuf. alors ndax xam nga. Ah. Eh, d'abord damay leeral ne man mosuma ko attaqué parce que noonu nga ubbee soo je ne l'ai mm-hmm. jamais attaqué. Mm-hmm. deuxièmement dama décidé woon. ah mais laaj nañ la ci nga ne saay saay boobu cam ainsi de suite. voilà deuxièmement. Mm-hmm. dama yàgg di wax say naataangoo ne. Mhm. il faut que ñun itam ñu yeewu. Mhm. presse ak Jamra. Mhm. et refuser de continuer à nous laisser manipuler par le bout du nez. par une gamine de rien du tout. tey nga wax lii ëllëg nga ne virage cent quatre-vingts et dama ne woon du ma ci waaye yow comme kurus naa la. dinaa ah, la dinaa la leeral la leeral nii. nga wax. dinaa la leeralal nii. toppatoo wu woon flyers bii mu ne. bi mu bi mu posté fang ci réseaux sociaux yi. Mm. naan damay def soirée. soirée privée deux cent mille mm. le lieu strictement confidentiel ba pour illustrer. Mm-hmm. flyers bi mu ne fang boppam ak mm. slip. Mm-hmm. ak sagoru soutien toroxal boppam. ah Mama Tagé non def nag ba gis ko. no fil d'actualité yow looy wut si yooyu ba gis ko nag euh, yow tamit euh, euh, am na ñu koy laaj waa mais Mama Tagé nan lay def ba gis yenn yi ba ciy wax. non non xam nga. Facebook. waaw am na une caractéristique mooy dafa am benn boulevard bu mag a mag bu ñuy wax le fil d'actualité. Mhm. foofu du yow wala man ñooy choisir ce que nous voulons voir ou pas mhm. donc booy surfer di défiler sa kii yëf yi di yéeg. voilà kon. ku fa def publication ba rek fa lay feeñee. alors foofu laa gisee alors léegi moo di yàlla dafa dogal sa maam samay maam ak suñuy maam ñun ñëpp ba jamono dee baax dañu daan régler les malentendus communautaires fa ñuy wax pénc ma ñaari sëy sëy mais mais Mamata temps bi bareetul euh, te am na yeneen question yu fi nekk foog nga tontu ci Rangou la mu wax dëgg la wala dëgg alors léegi nag ba mu yégee ne da ngay dem këram di di fa lekk ay ceeb wala lan ma ñëw ba mu yégee ne nag porte nañ ko plainte waaw ci la mer ca ngoon nga mu def vidéo mhm. paa bii di wax may wax mu naan ma cam man tam ma ne ko cam mhm. moom soxlawul sax muy dugg ci sama compte Snapchat mhm. eh, eh, eh, kii Instagram lan la fay wut koo xam ne yow doo jóge suma kër fii lay ñëw ma di ko ceebu jënal di ko suppu kànjal njarum soow ba pare di ko présenté samay copain góor jigéen te du wax dara ma ne ko ah soxna si am nga ñaari plainte léegi benn bi mooy bi ma jëkkoon wax outrage public aux bonnes mœurs article 318 code pénal léegi am nga deuxième plainte pour diffamation et injure publique alors bu ko defee nag 24 heures lañ ci teg rek pour wane la comédien ak yàpp nit ñi. Mm-hmm. mu simi yu bonom yooyu. sol semblant wala euh, tenue euh, ibaadu. Mm-hmm. <laughs> ak musóor bu ñuul mm. waaye ba tey weewu jinne yaa ngi ne few rek. Mm-hmm. naan waaw maa ngi jéggalu tonton Matar ak waa Jamra waaw yooyu de réeroo rek la bu ñu bëggee sax. bu ma dellu see. xeex yi ñuy xeex pour que man sax waxuma Matar euh, waxuma sax tudduma ko sax ko woon waaye comme que noonu lañ ko gisee colin yee leen neex naqari woon bàyyi naa colin yi mhm. suñu bëggee sax bu ma ñëwee euh, liggéey bii ñuy liggéey di xettali askan wi maa ngi dégg ñu ne dañuy jàppale les veuves des anciens combattants ndax jotaguñu seen ndàmpaay danaa jàpp si liggéey dégg naa ne itam rëy yu bari yi xale yeeg enlèvement d'enfants yi ñu ngi préparé benn caravane danaa ñëw jàpp ci alors ñu tegati vingt-quatre heures mu changé Ah, waaw encore attaqué waat nee na liste yi du dëgg waaw d'ailleurs man mi sax benn kii sama sama sama info line euh, numéro bi 76 lay commencé te moom mu mhm. dëgg ratatatatatat mais onze personnalités ci soirée rango bi ñan la ma ne ko léegi <laughs> ñàkk xam mhm. day tax ngay ridiculiser sa bopp mhm. ma ne ko premièrement waxoo dëgg ne infoline la moom xamul luy infoline infoline c'est une contraction de deux mots information en ligne en général je prends à témoin mon ami euh, patron euh, de, de, du, du, groupe euh, euh Consulting, mm. Mbagnick xam na bu baax li may wax. Voilà parce que liggéey na ci. Infoline c'est une plateforme informatique d'un investissement lourd 30 millions 50 millions. Admettons par exemple mu démarré moom Mbagnick mm-hmm. fii Infoline ci groupe bi. Mm-hmm. def publicité nag panneau yëpp ne voilà si vous voulez connaître les activités de groupe kii de consulting. Mm-hmm. Infoline temps alors boo defee Infoline bi. kii wax ak yow du nit c'est un robot informatique mhm. naturellement préalablement programmé avec des voix humaines mu ne la bon vous êtes sur le serveur de du groupe Promo Consulting euh, si vous voulez des informations concernant euh, le, journal euh, euh qui Rewmi FM appuyez sur un mm -hmm. si voulez informations sur telle autre activité appuyez sur deux alors nga di bës un mhm. mu ne voilà Rewmi FM est un journal euh, ayant une équipe jeune et cetera si vous avez des informations sur Ndeye Kumba Moro. Mm -hmm. sur 4. Mm -hmm. alors Kumba Moro est une elle a fait ses études dans tel tel tel a fait sa carrière et si vous écouter le précédent journal parler appuyez sur 5 donc. du nit mooy wax ak yow. Mhm. et c'est cher et c'est coûteux. kon moom amul njëgam day kàcc. Mhm. numéro boobu mu joxe du infoline. Mhm. sagaru numéro ordinaire la. bu mu joxe nii rek. voilà. te bu ñu fàtte ne man te bàkkoowuma ko yàlla dimbali na ma toute ma carrière dama ko passé dans la télécommunication mm-hmm. maa ngi jaar ci école bu belge bu tudd institut supérieur d'informatique et de gestion maa ngi mottale sama jàng fii Libreville IAI institut africain d'informatique te frère Abdou Diouf nekkoon fa directeur Mbaye euh, Diouf donc ba ma ñëwee itam foire mm-hmm. loolu laa fa ma sa liggéey maa créé service informatique bi def naa fa vingt quatre ans mm-hmm. Abdoulaye Wade yóbbuwuma fa daf ma fa fekk rek Euh, coppati ma jëlee ma chef service informatique defal ma promotion ma nekk PCA donc lii laa mës a liggéey de sorte que donte la waxul dëgg du euh, kii nu mu tuddati euh, infoline parce que amul njëgam mais numéro ba mu joxee ca page ba ne ku bëgg a bokk ci soirée privée bi mën nga woote fii même bu fekkee daf ko annoncé ba noppi jël puce bi dammat ko sànni paxu cabinet mhm. ku fa woote te d'ailleurs on l'a testé nous yónni naa sept gosses mhm. trois yi testé nañu nee nañu day sonné mais kenn jëlul kat yi ne testé nañu mais day tombé boîte vocale ku fa woote la traçabilité informatique des appels entrants et sortants xam nga durée de ñaata la. 30 mm-hmm. ans. Mm-hmm. kon fekk 30 boo duggaatee di nga xam ña woote ak ña woote wu. Mm-hmm. bu yeboo nga woote parce que ça t'intéresse wala bu dee copptee la ci dugal. enregistré na la jot naa nag une cinquantaine d'appels entrants. dont onze suspects. mu di ay autorités yu ñakk fayda yoo xam ne gàcce la sax ñii di woote. même bu dee particulier maanaam ku tudd seen tur ñëpp xam leen. ay ministre lañ wala ay DG wala ay lan ma ñooñu onze autorités yooyu ay ministre lañ wala wala ay DG non xam nga ñu bari ñu passé à bi sénégalais def boo ne autorité rek ñu ne forcément non dañoo bëgg a xam yow autorité nga non dama bëgg a xam député lañ wala non y a y a du wala ministre wala DG wala lan y a du tout waaw wala patron de presse médiatique am na ci waaw am na patron de presse. autorité non autorité médiatique rek. waaw du ma détaillé am na ci. Mhm. autorité simple ordinaire connue am na ci. Mhm. Mhm. te xam nga bi ma ci gën a métti daf ci am kenn koo xam ne. ku ma xam. maa ko mës a dégg ci rajo bi. xaw ma lan moo tax taxoon ñu interroger ko waaw waaw dëgg jamono ji dafa naqari xale yi dañ leen war a yar. te au moom ci ñi yàq xale yi la bokk. lan lay wut ci demande ay d'information si soirée rango luñ ciy wut. alors ñooñu nag ñu ngi leen di ñaan. kooku la ñu ngi leen di ñaan. ñaar ñooñu. bu ñu bàyyiwul di ruux xale bi muy cëppi cëppi di dof doflu ci nit ñi. Mhm. seen tur dinañ ko joxe. voilà beneen mamataar Matar Gueye nga tontu ci parce que attaque yi temps yi Jamra métti na euh, ñu ngi leen di attaque ci côté bu ne am na si koo xam ne dafa dem ba suñu naataangoo yi nekk ca groupe Futurs média di observateur euh, def fa benn euh, témoignage anonyme daal ne Mame Matar Gueye mii ngeen di gis muy jaay affaire voilà diine joxe la bonne leçon nekk ci rajo yeeg télé ainsi ci ay ay jamono. Euh, <laughs> Latif Gueye ci ay jamono Latif Gueye boobu Latif Gueye moo jiite euh, kuréel gi euh, moom bokkoon na ci ñuy jël ay préservatif di ko distribuer en tout cas même bu fekkente ni sax nekkul garaaw garaaw noonu mais. ku tool ni Mame Matar Gueye ñu ne ah. daan na def lii ah. peut-être am na xam nga mu yàq si sa image pour lan ciy wax dëgg la wala du dëgg waaw xaaral pour aller vite mhm. xam nga ñëpp a ngi seetlu temps yi mhm. les attaques venant de lobby homosexuel et maçonnique ndax lii Jamra def neexu leen alors naturellement wër nañu remuer nañ ciel et terre pour gisal ma mboot yu mel ni seen i mbóot casserole yu mel ni seen i casserole gisuñu mhm. ñu yónni benn dof bu ñuy ràngu mu wax waxi dof kon yow ràngu lobby yee ko yónni vingt quatre heures après mu daal di naanaat son vomi loolu xam nga échoué nañ ñu yónni waat un lâche koo xam ne nag mhm. ràngoo ko tane mhm. parce que ràngu elle s'est affichée à visage découvert jox leen ay information de la calomnie ne leen kii da daan jaay préservatif mm, mm. <laughs> alors wow. euh, ma contacté journaliste bi mm-hmm. ma ne ko man bëgguma problème ak yéen parce que man bëgguma daal Matar porté na plainte telle presse rafetul mm-hmm. ma ne ko moytu leen de vous laisser neel ma waaja parce que mm-hmm. yow journaliste diw yee nee nga yaa ko xam ngir yàlla na façon courage à deux mains wu dans les vingt quatre heures maître Khassim Touré avocat Jamra depuis plus de vingt cinq ans. Mhm. dana ko dóor une sommation interpellative pour que devant le procureur mu mën a justifier ces allégations mensongères waaye boobu ba léegi ñemewul alors ma ne ndaw si nag pour votre information yàlla dafa dogal y une coalition de religieux. Mhm. Euh, euh, Jamra bokk na ci le collectif des bokkoon na ci ñuy xeex sida voilà sida bi moo leen taxoon a jóg église bi sax bokkoon na ci et je remercie Paul Sagna moo doon suñu partenaire alors collectif de religieux boobu xam nga loolu seen liggéey di parcourir les quarante cinq départements du pays dem ci siège ASC yi di fa def ay conférence de sensibilisation toog ak ban bàjjenu gox yi maanaam les relais communautaires mm. di fa jàllale ay messages de prévention mm-hmm. contre les MST les maladies sexuellement transmissibles mm. léegi nag ci suñu biir parce que y a des musulmans y a des catholiques y am na ñoo xam ne dañu ittee woon euh, les quartiers à risque nee nañ leen di jox préservatif pour limiter les dégâts mm. ndax mmh. freiner un peu la vitesse de transmission du VIH/SIDA waaye ñun de notre côté Jamra et je le di haut et fort particulièrement Latif particulièrement man parce que man sama bopp laa xam nous avons sans condamner cette démarche bi ma la wax léegi nous avons été toujours favorable à la vulgarisation du préservatif moral c'est-à-dire le bannissement de la fornication et de l'adultère fexe ba dugal ci bopp nit ñi euh, alerte pour ñu bañal seen boppa njaaloo ak infidélité conjugale parce que mm-hmm. suñu borom dafa wax ni mm-hmm. laa taqrabu zina kon waxul bu leen ko def njaaloo dafa ne bu leen ko sax jege tellement musiba bu ci ne ba nit ñi gëmuñu ko en 83 feebar bu kenn sóorulaalewul am muy une maladie incurable muy sida mm. kon l'histoire donne raison aux écrits coraniques kon ñun loolu la ñu mës a prôné mu di euh, le préservatif moral soo jël ay préservatif di ko séddale di ko maye wala di ko xaraam fu ma fekk ñu di ko fu ma fekk ñu di ko joxe ki ko wax daal mënu cee génne ki ko bokk ki wax def na lu bon te nga excuse-moi du terme tapette la ndax bu ñeme woon day affiché wu ne man la bu ñu demee tribinal devant le procureur il sera obligé d'apporter des preuves de ces allégations mensongères mais comme que daw na ku daw moom mënoo ci dara daw toolu xare mënoo beneen bi Mame Matar Gueye internaute yi wala auditeurs yi sax ñoo koy laaj c'est vrai dañ naan mais Mame Matar moom Euh, kañ lay noppalu Mame Matar bu attaqué wul euh, euh, lobby yi wala mu attaqué ñi nga xamante ni jàpp nañ ni dañuy yàq valeur yi ainsi de suite wala di prôné ay contre valeur Mame Matar Gueye tamit wala Jamra sax plutôt mi ngi daal di def lu ñuy wax médiation maanaam képp ku nekk ci jafe-jafe pour état bi fay la ainsi de suite da ngay gis ni Jamra daf ci daal di dugal loxoom daal di jouer ab rôle médiation am na sax internet yu ñuy wax waaw mais paa bi moom kañ lay noppalu de famille kii kañ lay noppalu xanaa amul vie de famille mais Mame Matar xanaa ma nga fépp donc euh, médiation bi euh, bi ci mujj sax temps yi occupé actualité bi de les jàmbaar du Golf et tout waa Tobago bari na ay cas yu baree bari yoo xamante ni euh, Jamra mi ngi ciy def médiation bari na buñ ko doon lim fii duñ du jeex Jamra ak médiation yi waaw c'est l'occasion de dire que bi ñuy doogee bi ñuy doogee créé Jamra en li ñu taxoon a jóg mooy xeex contre la dégradation des mœurs mhm. moo tax je peux la citer Maïmouna Ndour Faye mhm. moom laa ubbiwoon émission bi dama mhm. yëkkati journalu Jamra mhm. ma ne ce que les gens Jamra yeewul rek nekk ONG on était d'abord un journal alors ma ne ko fii ci suuf on a dénoncé le racolage bi am fii ci camp colonel ay kilifa ay député ay ministre ñëw di détourner des étudiantes yàq seen jàng corrompre leen di njaaloog ñoom ñun ñoo ko jëkk a bon c'est dix ans après vers quatre-vingt-huit eh, amatul woon dix ci la Jamram statut d'ONG mhm. commencé na di dugg dans le social et l'humanitaire mhm. ñu dem ba ci période yi nit ñi gën ñu yaakaar mhm. te ñun mënuñu dara dañuy sa góorgóorlu rek ay sagaru taalibe yu tekkiwul dara lañu daal di ñu yaakaare atte bu dee réeroo dafa am diggante état et une partie de de la population mmh. c'était le cas de AMA Sénégal état du Sénégal moo leen tooñ ndax daf ko dissoudre et y a de plan social état amee leen euh, trois milliards di leen dawloo ba ñoom ñu ñëw seet si ñu mu bind Macky Sall Macky Sall boole maag premier ministre premier ministre boole maag euh, Amadou Ba ministre des finances ak Abdoulaye Diouf Sarr. qui mm. à l'époque était le ministre de tutelle. ba euh, génne nañu trois chèques de cent trente millions ça fait trois cent dix millions sur les euh, trois milliards yi leen état amel loolu waral également d'autres structures yu mel ni la Sénélec. Senelec bi nga xam ne euh, Mouhamadou Makhtar Cissé presque jeex euh, na jàppale na ma mm. ba mm. réintégré nañ 493 mu mm. des 187 alors yooyu yëpp buy am gars yi yàqkat yi dañuy du lu ne nii rek mm-hmm. nga def médiation régler affaire anciens combattants yi nga xam ne c'est en très bonne foi ñu ambassade arabe saoudite recevoir na ma pour ñu régler ko ñu dumay lu ne nii rek euh, waaye boo ne rangu rek ñu ne waaw kii day waxi rangu rek lay wax loolu loolu c'est de l'hypocrisie mm-hmm. waaw Jamra la muy def wax ko waaye bul si coppati loo xam ne c'est un millième de nos activités parce que c'est c'est le cadet de nos soucis nga jël ko amplifier ko mel ni Jamra na fait sa ça affaire u naa fekk la te suñu borom bugg ko alors léegi fi may jeexalee daal waaw moo di réew mi ñun ñëpp a ko bokk lii Jamra di def maanaam xeex contre les contre-valeurs ak yàq suñu doom ak jikko yi mhm. du suñu liggéey ñun rek mhm. yéen réew mi yéen a ngi ni dugal ci seen loxo mhm. parce que lii ngay def bul ko xeeb yee nga ñu bari xay na soowee nga ñu bari des jeune qui risquent de tomber dans la dérive waaye nag occasion la aussi. Mhm. état bi ku ci def lu nak su dul noonu dañuy dal sa kaw. tudd naa sànq onze yu ñàkk fayda yooyu dem di woo ci numéro rangu boobu waaye tamit autorité bu fi def lu baax dañ koy wax. Euh, je viens d'avoir la confirmation que état bi démantèle na un terrifiant réseau de trafiquants de drogue qui s'étalait de xombal à Joal et euh, mention spéciale à l'ex-préfet de Fissel Bandane mu di euh, le préfet Djibril Diallo waxtu bi jeex na Djibril Diallo <laughs> il a pris des risque énormes mhm. parce que dafa exposer sa vie waaye ba mu jëlee tëgg bal le fuyard dafa jam ko dafa alerte tous les centres de santé ne leen am na ku ma gaañ waaye waa ji ngi ko jàppee xombal muy faju bañ ko jàppee nag ci la ñu remonter la filière demonte démanteler réseau bi yëpp kon nag bu amee une autorité étatique bu def loolu te il n'était pas obligé de le faire mhm. dañ koy sargal kon nag Djibril Diallo gàcce ngaalama yal na yàlla jàppale yal yàlla taxaw te yéen yéen a ngi koy ironiser di ko tuddee Jacques Boer mm. mais au passé na Jacques Boer mm. moom dafa boole xarañ ak fitu Jacques Boer ak inspecteur Colombo kon nag ku Sénégal soxlaa ngi noonu yàlla na yàlla guddal en ñu kontaan bu baax a baax Mame Matar Gueye di ko remercier euh, ci waxtaan bu am solo bi ak tamit euh, disponibilité bi nga xamante ni am na ko ak presse bi yëpp pratiquement mais particulièrement pour Rewmi FM en tout cas ñu ngi koy remercier bu baax a baax Mame Matar Gueye nekk vice-président euh, bu ONG islamique Jamra di remercier auditeurs yi ak internautes yi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo ci wàllum technique bi Samba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen tem ak beneen invité jaa ngeen jëf